السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتاه وهب يا رساق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني وكني الآن عليك أجلا عجلا بالبشي محمد حتى أقيم لدين الله أركانا يسير جوعي لتوبا وحمني وقني أثر الورى وتجب لي سمسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشاركا لرب مشكونا أجيب مسلسل حسن قدم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa ko kon di di teg nuyoo bi ci loxo sëñ Abo mi nga xam ne mu moo yor magal gi waaw xam naa sëñ si naa ak sëñ Saam li ñu wax daanaka kon da nga da dul xam ba xam da nga ci maa tegaat dara am déet waaye nag sëñ Saam maa koy ci wax ne ko bi ngay jàng aaya bi bi. bi nga ci sukkandiku da ngaa tëb wal mata waaw ah, xam nga almu almuwaatin wala almuwaatana bil maana al ilmaani yi ah, kooku kooku kooku moom kon xikma bi kon bil maana yi daanaka kon du ko jaar man nag dimension boobu laa bëgg a wax tuuti rek ndax kenn ku nekk li ngay dund mën naa am moo lay not moo lay not wala li ngay bëgg a dund wala li li nga bëgg daal li gën a yittewu ci yow mooy not ci sa dund xam naa fi ma bu ma bëgg tàmbalee ci mooy soxna Anta Njaay ku am solo kooku ak nawleem yooyu mu nekkaloon ku am solo maanaa wa an bataxa nabatan xasanaan soxna Anta Njaay bu maam Cheikh Anta soxna Anta jaay la natija jaay rek rek waaw soxna Anta Njaay noonee mu jiitoo ci kër ga ñu mu am bant ya dem ba noonee ba ci maam Cheikh Anta mu dégg sëñ Mor Anta Sali di dénk sëñ sëñ bi boppam mu xam ne la mu xam ci sëñ Mor Anta Sali kon ku dénk boppam ku nekkoon kon kooka dara la loola loola wa ummuhu siddiqa siddiqa wa siddiqa la ndax ndax siddiqa mom lay ibnu arabi di wax ne moy ko xamne dañu dañoo raxase xolam ba bi nuuril karam ba bu gisee deug xam ko goor ah, góor fekk la ci àll ba ne dama lay may dom nga nangu ku ne xam ne da nga am connexion ba mana xam ndawul yalla loola loola kon eh, soxna Anta Njaay ku am solo lool lool koo xam ne maam si Anta nu mel mooma nag wa nag wa sëñ bi am na gan amul lum ko berndeele mu jël aw nag jox ko doom ji ni ko jox ko gis nga xaal ba ci sëñ bi def jël der ba ni ko toogal ci kaw der bi sëñ bi di di ko wër di jàng la muy jàng moo tax moo tax naflaay bi nga gis ci Daaru Salaam naflaay bi ah déet ah amut ñàkk dërëm ak ngërëm moom Cheikh Anta dërëm ak ngërëm Cheikh Anta nag walla rek waaw nag wa moom loola moo indi naflaay bii nekk Daaru Salaam yàlla sax waay yàlla sax kon soxna Anta Ndiaye kon résultat mooy maam Cheikh Anta sëñ bi nag buñ xoolee maam Cheikh Anta tërbiyaam gu metti ga am na ci lu ma kii lool sëñ bi njaareem sëñ bi xëy di dox noonu tanazu yatanazza fi saba ànd ak Cheikh Anta gaawaan nga ne lay bi noonu maam Cheikh Anta di xalangoo ci lay bi ci kanamam ngir fompal ko doq-doq yi lay bi nekk ci ñax mi li ma gën a yéemaat su xalangoolu sori day ñëw nag làng ak moom du ko jiitu bu demee ba ba fa mu doon eh, biringu jeex mu daal di biringuwaat fompal ko lay bi te te kat ñoo bokk baay ah loolu sëñ bi woo mu siddiqa ah foofu lay dellu de la ne ca ndey ja mooro mooroyat ci moom ba mu mën a xam loola am na sa sa sëñ Moussa Wathie ceytu doon na nettali ci nettali ci ak màggalu Daaru Salaam lu lu ma yéem ba sëñ gaawaan jëndee mbubbum sooy ma mantob sooy ma ci sëriñ sëriñ ba ñëw sol ko ci ñëw bi sëñ bi sëñ bi ne ko summil mu summil sëñ bi daal di taal teg ci muy lakk ba jeex takk sëñ bi waxu dara xoolal xoolal boobu éducation te booba si ante booba njariñ la njariñ la booba sëñ bi ne néewu ko mbubb mi nangam dara ko sumil mu summi mu daal di koy taal mu lakk ba ca tàkk sëñ bi waxut si ante foofu lu lu ma fi soxla woon lool si gaawaan al al aarif xam nga ci ànd gaawaan commercant la woon nangam yor xaalis nangam yooyu yëpp baax na sëñ sëñ Mourtala bi bi ñuy bind ci moom ab téere noppee góot ba ne gars yi ah ay fuur ak ay nangam ak ay transport ak yëpp baax na de waaye kooku du sëñ Mourtala sëñ Mourtala mooy al billah loolu ay wasaa'il la al-xidmatu hiya al-ibaada li ma la aadaat wasilatun yàlla ibaada loolu moo ay ay wasaayal dong la ay kay la waye du du singawan singawan arif billahi ya naa kan, yéen waa Daaru xam ngeen ko askar am nay bagage yu mu daa ya yaakaar ku len laaj jaaro biñu fekkon ci loxom ba amna secret sangam bu ca nekkon bu mu sikkar jaaro bi bi nga xam ne bi mu wàccee liggéey jaaro bañ ba bañ roppee ca loxo ba jaaro ba ab sik ab sekkere la bu ñuy sikkar kooku kon nga xam ni kon jaaro ba moo ànd ak moom ba mu wàcc ko kon Cheikh Anta kon alif billahi ku daal koy koy sikkar la dara koy sikkar dara la ko ko ko xam dara la ko xam dara loolu nag loolu nag xam naa bu ëllëgee yooyu mat mat na ci baxeel ñu ñu waxtaanee Cheikh Anta Gaawaan al-aarif billah waaw loolu ah loolu de moo gën a saf xorom ci man waaw loolu moom day neex waaw day neex moom waaw Cheikh Anta Gaawaan al-aarif billah akay akay neex waay loolu moom loolu moom lu ndax it gone yi xam ne Cheikh Anta kat bu dee modèle la ci économique yooyu. waaye mu matal la ci beneen économie mooy batin batin ci anta modèle la ci économie batin batin batin nga xam ne modeste gi modeste moo tax batin bi feeñut du ay xar baaxak yooyu waaye ñi ko xam xam nañ ne moom kat ku daa sikkar tur yàlla la waaw loolu loolu loolu nag mat naa wax gone yi ba ñu xam ne Cheikh Anta kon moom léegi ab aarif billaahi la waaye du ab commerçant dong waaw loolu it ndax it nag buñ ko bindut ngone yi ci kanam mën nañoo réer yaakaar ne si anta ko waxee xaalis la dërëm waaye dërëm anamu dërëm ko jiitu ah li moo moo ko may dërëm kon kon dërëm bi ci moom wasiila la gaawaan bokkoon na ci conseil privé bu Sëñ Tuubaa bi juróom lañu woon de góor gi Fall Madior nee na sëñ Fallu moo ko nettali mu ànd ak sëñ ma Madina sëñ Bakke bu sot ca la bokk mu Moussa ca la bokk maam Thierno ca la bokk ci Anta Gaawan ca la bokk sëñ Wandumbe laay laam-laame fi ñu toll nii sama saakira bi bu mën na xut ca la bokk juróom lañ mooy conseil privé bi Blaise Diagne ba mu dikkee ca mbirum ca mbirum euh, soldaar ya dana ko demal wax wax wax waxtandoo ya waxtandoo la ko tuddee waxtandoo suñu tubaab mi ngi leen tuddee waxtandoo waaw mooy ñu muy waxal ñu muy diisool ñooña si Anta Gaawaan bokk na ca waxal xam nga ko kon moom doy na sikk moom waaw si Anta Gaawaan bokk ci conseil privé sëñ tubaab bi bu ma delloo ci feedback ci sëñ sëñ saam li li mu wax waaw su ngeen ubbi woon yéen ab waqf waqf Cheikh Anta Gaawaan waqf waqf boo xam ne day yor daara yi mag ñi nekk ci Daaru Salaam te amuñu seen loxo juru seen ginnaaw ñu leen cay jàppale la sëñ Manar waxoon sëñ sëñ Balla Fari Jëng ca leetaram ba sëñ Balla Fari Jëng da daa bind sëñ Manar sama maam leetar ne ko koo xam ne dañ koo bàyyeeg oto bu màggat clients yi nanguwuñoo joxe paas te nanguwuñoo wàcc naka pexe sëñ sëñ ma naar ne ko da nga leen di da leen di fekki bu ñëwut demal mag ñi lum ko lu mu ci jublu ci car bu yàqu be car bu magat be ak nangu yo joxe pass client ya mu ne ko car bobu moy khilaf ak bayam ba client ya moy ñi andon ak bayam ba jeex amatuñ luñ joxe adiya ñoñu na len di fekki di len jàppale waqf bi bu amon ndax kon du am solo way magi yi daaru yi xawma xawma dëkk bi de man waye jombut dana am ñuko soxla waqf bi kat ñu ne waqf bi kat bépp mag mu àndoon ak sëñ gaawaan sëñ Modou Mamoun sëñ nangam ñoo lay fayal courant ñoo lay fayal ndox kese soo amee ordonnance ca mag ñooñee ku ci ku ci sa loxo ju jur sa ginnaaw ñoo lay jëndal sa sa ordonnance yi ah soo entré hôpital ñoo lay yor day niru lu bari nag te fekk ne bariwut waaw maanaam loolu yaakaar naa barkeb maam si ante bi mën naa couvrir loolu yaakaar naa kon waqfu boobu kon boobu bu amoon dana am solo lool dana am dana am solo lool mooy loolu ko kon mooy jëmmal waxtaanu sëñ Sam bi ci ci mujj gi kon maa ngi jéggulu dama doon kii rek dama doon ñambaas rek waaye waaye sëñ Sam li li mu wax ni si sëñ naa waxee jot na waaye nag euh, ñambaas yéen it bu déwénee yéen it euh, balaa déwén ngeen gëstu ci maam Cheikh Anta ci euh, ci baatin bi arif billaahi bi yaakaar naa dana am solo salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aleykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh jërëjëf Cheikh Moustapha Koki moo jiite madrasatu Faydu Akaabiru Saalihiin